أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته comme niñ ko baaxee di def ci talaata bu nekk ci waxtu wi ñu ànd ak yéen ci téere kitaabu tawxid ba tey rek ñu ngi toll ci ma jaa fi sixri la ñëw ci buntub njabar tey ñu ngi jël njabarkat lan mooy àtteem ci lislaam mu ne qaala almusannif rahimahullah borom téere bi nee na ñëw na ci sahihul buxaari an bajalata ibnu abada qaala kataba umar ibnu alxataab radiyallahu anhu wa ardaahu an iqtuluu kulla saahirin wa saahira qaala fa qatalna thalaatha sawaaxir borom téere bi nee na jële nañ ci saxiixul buxaari yi muy téere bi gën a wér ci téere hadis yi hadis boo xam ne ka fa nettali mooy bajaala nee na Omar ibnul Xataab bind na lettre jëme ci ñun lan moo nekk ci lettre bi Omar ne leen an iqtulu kulla saahir wa saahira na ngeen rey bépp njabarkat bu góor ak njabarkat bu jigéen ba jaala nee na fa qatal na salaasa sawaahir ju jàpp ñetti njabarkat daal leen di rey kon lii mooy àtte njabarkat mooy bu ñu enquêté ba jàpp ko muy dëgg lii àtteem ci lislaam mooy ñu dagg baat bi nee na Omar bind nañu lettre mu ne iqtulu kulla saahir rey leen bépp njabarkat wa saahira mu ne wa zaahiru annahu yuqtalu min gayri istitaaba mu ne li feeñ ci yaxu hadis bi mooy njabarkat bi bu ñu ko jàppee kenn du ko tuubloo sax donte ne am na ñu wax loolu mais li feeñ ci yaxu hadis bi mooy bu ngeen ko jàppee rek mu leer na njabarkat la rey leen ko moo loolu moo feeñ ci yax bi mu ne wa huwa kadalika ala al mashhur mu ne lii aussi mooy li siiw ci ahmad riwaaya boo xamante ne ci imam ahmad la bàyyeekoo mu ne wa bihi ci lii ñu leen wax mooy rey njabarkat bu góor ak bu jigéen qaala malikun al imaamu malik loolu la wax mu ne li anna ilmu saahir la in ulima bi annahu saahir mu ne bu ñu xamee ne njabarkat la rek jarul tuubal la yazulu bi tawba jaru ko mu ne nañ ko rey mu ne waaye jëlee nañ beneen riwaaya ci imam ahmad mu ne yustataabu dañ koy tuubloo fa in taaba qubila tawbatu bu tuubee ñu nangu tuubam ñu bañ ko rey mu ne ba bihi ci loolu ma leen wax mooy dañ koy tuubloo qaala shafiiyu al imaamu shafii loolu la wax mu ne li anna zanbuhu la yazidu an shirk mu ne ndax bàkkaaru njabarkat rawul bokkaale te comme bokkaale kat mun nañ koo tuubloo bu tuubee ñu bàyyi ko yàlla jéggal koy bàkkaaram kon njabarkat njabarkat tamit buñ ko jàppee mu reconnaître na njabarkat la waaye day tuub bàyyi ko mu ne kon dees na koo bañ a rey mu ne wal musrik yustataabu kuy bokkaale dañ koy tuubloo su bañee tuub nag ba deew mooy moom moom safara la jëm direct waaye ci àddina bu tuubee balaa muy dee yàlla mën na ko jéggal bàkkaar yooyu mu doon def ndax xam ngeen ne benn bàkkaar boobu dong dong mooy bàkkaar bi nga xam ne soo ko defee yàlla du la ko jéggal waaye kañ boo ko deewaalee te kon bokkaale moo gën a garaaw njabar ah waaye njabar dafa laxasoo waale encore ak bokkaale ndax njabarkat boo gis bokkaalekat la kon daa boole ñaari bàkkaar yu mag yi moom moo tax boroom xam-xam yi ne kii dañ koy rey mu ne imam Shafi loolu la wax mu ne bokkaar ndax bakkaaram paasewul bokkaale te bokkaalekat dañ koy tuubloo wa tuqabbalu tawbatu mu ne tuubam dañ koy nangu wa lizalika saxa imaanu soxara firawna wa tawbatu nee na ay njabarkat a ngi nii yoo xam ne alxuraan moo wax ne ñii ay njabarkat lañ te alxuraan la mu wax mooy dëgg ñooñu ay njabarkat lañ woon mooy ña daje woon ak Muusa ci jamono firawna xam ngeen ne firawna bi gisaanekat yi saxalee ne am na benn xale bu war a judd bu ko folli ci nguur gi yan stratégie la tëral pour sax ci mooy yuzabbihuna abnaahum wa yastahi nisaahum nañ rey doomi góor yi bàyyi doomi jigéen yi waaye terewul kattanu borom bi subhanahu wa taala sauver Moussa ci période boobu nga xam ne Firawna mi ngi rey xale yu góor yi chaque jour ci barab boobu damay wax ne foofu yàlla du morom du nit yàlla ay mbiram xel jomb na ci peeg ko takku yàlla bu doon nit la wala muy am kuy programme programme bi du faussé kon foofu lan lay def bàyyi ba Firawna fàtte bañ na mooy li ñuy wax rek non nañ bàyyi nii temps yi dafa tàng nañ bàyyi ba affaire yi sedd wala temps yi bul def dara bul yëngal nañu kii tëral say pexe yooyu say xalaat waaye xoolal ci période bi nga xam ne Firawna mi ngi jël xale yu góor yi di rey yàlla programme programme yoon na ko kon est ce que njabarkat yi li ñu woon Firawna day day changé programme mu yàlla yàlla bàyyi Moussa mu judd beneen bi mooy Moussa bi mu juddoo njabarkat yi fekki wuñ ko wala fekke nañ ko mais yaay ji nëbb na ko ba yëguñu lu xew lan la xel nangu wootoon foofu waaw mooy mu rawale ko rawale ko nëbbi ko waaye xoole yàlla dana yaay ji préparel ko ay bagage am nga daaj benn kees def ko ci boo ko tegee ci kees gi nga teg ko ci dex gi beneen waxuma sax Firawna mais beneen danger ngi foofu wala tey ku la noonu ne nga am doom benn waaye ne la teg ko ci géej gi wala teg ko ci mbedd mi sax nga duggaat sa biir kër loo koy wax waxuma la mu ne la yóbbu ko ci mbedd mi de wala teg ko ci géej gi dana la tegal ci buntu kër gi rek nga duggaat ci biir kër gi nga ñëwaat jël ko loo koy wax du nga ko nangu waaye xoolal yàlla mu ne ko jigéen kii man yàlla dinaa la ko delloo inna la radduhu ilayki allahu akbar dinaa la ko delloo wala iman du lu ñuy fortaatu ndaw si am yaqiin ki sëbi xale bi te mu ngi ëmb ñu koy garde mu juddu kenn reyu ko su ko yàlla moom waxee ne dinaa la ko delloo amu ci sikki sàkk mu defar kees gi teg ci ay morsoom ay laltaayam yóbbu ko ba ci tefes gi ci géej ci dex gi mu teg ko fa ah foofu tamit mbokk yi lan la fa xel nanguwaatoon mooy xanaa yàlla puus ko boog traversé ko boog dex gi mu dem beneen côté bu firaw na gouverné wul wala waaye yàlla ne dex gi vague gi dex gi yóbbul leen ma ko kër firaw na vague gi dex gi di puus kees gi jabaru firawna mu ngi sangu ndoo ak jaam yi yu góor yi yu jigéen yi ñu nekk ci ndox mi di pëccax pëccax yi jabaru firawna mu ngi tëdd ci benn lalu lalu chambraer ah ñu koy sànni ay fleur ak ñii di peñe kawar gi comme jabaru góor yi ni ñuy def ñu jékki-jékki seen kees gi muy tëmb di ñëw ñu ne lii lan la lii lan la mu def signe kenn ci plongeur yi mu plongé jëli kees gi bi mu neew taaw mu ne ko bébé la xale la xale la mu ne ko indi ko fi jabaru firawna biñ ko indilee kees gi mu s- mu wàcc ci lal bi mu tëddoon ne nii rek bëtam ak bëtu Muusaa ak bëtu liir bi jàkkaarloo rek yàlla mu ne ko wa alqaytu ilayka mahabbatan minni ma sànni ci ñoom ku gis xale bi rek bëgg ko waxuma la ki ko jëli waxuma la sàngkat yeeg mais ndaw si ci boppam moo jël rek daal di taf ci xolam daal di ne qurrata ayunin lii loolu ni ngeen koy firee fleur lan de mon cœur ah c'est comme ça on dit ah étudiant yaa ngi fi de ndeysaan mu ne lii day sama reeni xol la sama reeni xol mu bëgg xale bi xale bi tàmbali di jooy nag di jooy léegi lan mooy problème waxatuñu nañ ko rey yóbbu nañ ko ci Firawna Firawna gis ko rek moom moo ne woon nañ ko rey de mu ne ah comme amuñu doom daal kii nañ ko yar amaana jour dina ñëw mu jëriñu wala fàtte nañ projet rey allahu akbar moo la yàlla du morom yàlla ku ko yeb da nga koo xamul subhanahu wa taala xale bi di jooy di jooy jooy yu métti bu ñuy def bi borom mu bañ a nàmp ween wuñ ko sexal mu mu lànk fekk rakkam magam bu jigéen yaay ji waxoon na ko topp ci nga xool fu fu ko fu mu jëm bu mu gisee ne waa pale bi for ne ko te moom fa lay liggéeyee mu ñëw ne leen kii de xam naa famille boo xam ne bu ñu leen woowoon jooyam yi dinañ ci mun dara ñu ne ko bu ñu fontoo te mu nga jëli kooku mu ñëw mu dem jëli yaay ji yaay ji ñëw ñu jox ko bébé bi mu sexal ko ween rek xale bi noppi waxuma li ko yàlla yàlla waxoon ne dinaa la ko delloo mais léegi xam nga luy problème léegi dañ koy régleel salaire muy nàmpal xale bi ñu koy fay allahu akbar léegi yàlla dafa am salaire léegi salaire la am ah waaye loo ñuy réglelee xale bi mu ne ah ngeen fay ma rek waaw te dama koy yóbbu sama kër parce que mënumaa toog fii ci pare bi aussi ngeen di bàyyi ma dem fële sama kër ma toog fa di ko nàmpal bu weer dee ngay yónni ma sama xaalis gars yi indi papier yi mu signé allahu akbar kon delloo boobu neex na de sunu borom mu ngoog léegi Moussa tàmbali nekk fa ak ñoom nekk fa ak ñoom ba màgg am benn histoire bu am mooy banu Israël ba ak égyptien ba ba ñu taxawee di xeex Moussa ñëw di àtt bëmëx égyptien bi mu faatu parce que Moussa ponkal la woon dafa amoon doole Moussa du woon ku ndaw de lan moo leen di woon ne Moussa dafa amoon doole kan moo may woon lu yoon ne Moussa dafa amoon doole xeer bi mu ñëwee fekk xeer bi ñuy ubbee teen bi nga xam ne ay ponkal ñoo koy yëkkati ñu doog a root xar yi naan ah ay juróomi ponkal ak fukki ponkal ñu yëkkati xeer bi Moussa gis ay ñaari xale jigéen ñi ñëw bëgg a root mënuñoo root mu ne leen la yéen lu leen tere root ñu ne ko benn teen bi daa tëju mënuñu koo tijj deuxième bi mooy soo gisee ñun ñu indi suñu xar yi suñu papa dafa màgget amul xar amul doom bu góor fekk boobu Moussa daw na jóge na Égypte dem dem Madian mu fekk fa yonent bu tudd Shuaybu ba mu waxee ba ko ñooñu waxee loolu Moussa daal ne jëkk ci kaw garab gi suufu garab gi mu toogoon mu ne jëj taxaw ñëw ci ten bi daan ne xeer bi zaj ak ñaari loxoom teg ko fay daa leen di tànqal ñu naan ba ñu ñibbee seen papa ne la yéen tey teel ngeen ñëw dañu ne ko hii papa benn ponkal lan fa fekk de benn ponkal lan fa fekk kooku ay kooku boo ko amoon mu lay sàmmal dina baax de noonu la Moussa nekkee foofu dem ba takk jabar xisu xisa Moussa ci la ñu nekk bëgguñu anticiper ñu dagg ko foofu par àllarba histoire Moussa la ñuy am suba waaye suba bulughul maram la beneen mercredi bi Moussa nekk fa ba mission jeex mu war a ñibbe Égypte ba muy dem ci yoon bi la ko yàlla def yonent yónni ko ci firawna bi mu demee alhamdulilah tàmbali mission bi firawna question bu mu indi mu tontu luy wane ne yonent nga mu ne ko sama yat bi moo ko sànnee mu nekk jaan xam ngeen yàlla balaa mu koy yónni ci firawna yàlla yóbbu na ko ba tuuri Sina defal comme formation ci yat bi ba pare Moussa yor na yat bi ci àll bi di sàmm yàlla ne ko wa ma tilka bi yaminika ya Moussa Moussa loo yor mu ne hiya asaya atawakkau biha sama yat la moom lay appuyé wu moom lay sàmme xar yi su ma gisee garab gu njool goo xam ne xob yi xar yi soxla nañ ko mënuñu koo lekk mënuñoo yëg ci kaw dama koy dóor xob yi wadd xar yi lekk waaye waliya fiha maaribun uxra am naa ci aussi yeneen soxla ndax ponkal mu ma dab yat bi laay jëfandikoo wala rab bu ma fi song yat bi laay utiliser yàlla ne ko am na leneen lu nekk ci yat bi te xamoo mu ne ko lan la mu ne ko sànni ko mu sànni yat bi fa iza hiya sobaanun tasaa mu nekk jaanu ñàngoor bu ngan yeew Musaa tiit loolu ci àll bala moog yàlla saa tiit ragal yàlla mu ne ko xusha wala taxaf yow sa montre ñëw na mu ngi ci paaba dégg nga bul ñibbi te joxuñu la ko ñoo fàtte yeneen yi tey ndi lan la mu nekk jaan yàlla mu ne ko xusha looloo tax foofu borom xam-xam yi di wax ne ngëm mooy contrôler xel waaye xel du contrôler ngëm lan moo koy wane foofu mës ngaa gis jaan ñu ne la téye ko ak sa loxo foofu lan la Moussa utilisé pour téye yat bi ah ngëm al iman waaye xel mayu la nga téye yow sa loxo xel nangu ko waaye ngëm comme yàlla nee na ko téye ko rek mu ne ko zaj sanuidu sanuiduha siratahal uula dinaa ko delloowaat nam meloon bu mu ko téye mu nekk mu nekkaat yat mu tàllal ko mu ne waat zëcc taxaw yàlla ne ko nag lii dama la ko xamal pour boo demee ci firawna ndax bu demoon ba ci firawna sànni yat bi foofu yat bi nekk jaan moom dam day tiit comme ni mu tiite fii du xam li mu indi moo tax ba mu nee cëpp firawna ne ko yow luy wane ne yonante nga mu ne ko sama yat bi moo ko sànnee jaan lay nekk mu ne ko ak lan mu ne ko sama loxo bi ma ko dugalee sama poxataan génne ko lumière lay nekk ku ma ko teg dootoo gisati gaay na ko defal ñu gis mu sànni yat bi yat bi nekk jaan ñëpp daw mu téye ko mu taxaw nekkaat yat mu dugal loxo bi ne leen nii mu nekk lumière mu ne tuñoo gis gaay ne kii jabarkat la kon il faut ñu wooye jabarkat yi foofu sax bu doon xam ne nañ Firawna bëggoon naa gëm waaye Firawna dafa am benn waay ci ministre mi benn ci conseil bi gaa yi ñu ne premier ministre la mu ngi tudd Haamaan la naan buur aayul dag yaa aay léeg-léeg président wala wala wala bëgg a def lu baax nga gis loolu ñu naan ay faucon fexe toog ba du def loolu moo tax ñu ne buur bonul de mais entourage am moo am ñu bon wala ñu bon ku yàlla defal lu baax nag mooy ku am ñu baax ñu ko wër comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu amee woon ay saxaaba yu baax yi ko wëroon moo tax mission bi mu réussir ko ñu ne ko kii jabarkat la bàyyi ñu dugg ci dëkk bi dajale njabarkat yépp bu ñu ñëwee ñu daaneel ko ah gars yi ñu jox leen fas yeeg gëléem yi ñu dugg dëkk bi dajale jabarkat yépp bu ñu ñëwee ba ci Firawna dajeek moom mu recevoir leen mu wax leen histoire bi mu demee ñu nangu ñoom tam dañoo poser seen question ne ko buñ ko daanelee buñ ko gañee loo ñuy def loo ñuy jox a inna lana la ajaran in kunna nahnul ghalibin buñ ko gañee loo ñuy def mu ne innakum la min al muqarrabin kon dama leen def ay ministre xalo daal ay conseil ngeen sës ci man ah yaa ngi affaire bi neex na terminé ñu daal di ut benn jour nag annoncé ko peuple bi yëpp ci place bu ñu xam yow mu ziina waaw nga xam ne stade bi dañ koo xaaj ñetti xaaj tribune officielle loolu ngeen di wax ah ñun ñoo fay nekk président ak nguur gi ak tribune boo xamante ne autorités yi ñoo fay nekk ñi liggéey ci gouvernement bi ak tribune boo xam ne suq yee fay nekk peuple bi ñuy yuuxu rek di tàcc ñoo xam ne xamuñu la xew ndeysaan ñu def nit ñi ñetti xaaj yooyu firaaw na ñëw teel ak gàngoor gi waaw ak ay solam ay soldaaram ak ay tëni oram ministre yeeg ñeneen ñeeg député yeeg conseil yeeg cumbur yi ñoom it ñëw nekk seen tribune peuple bi génn ak seeni sabar di zibilé ñoom it nekk ci benn tribune ndeysaan Moussa dong ak kan la àndal Haaruna ñoom ñaar kese ñoom ci seen tribune ñaari nit Allahu akbar biñ ñëwee ba jàkkaarloo njabarkat yi daal di wàcc si taxaw ñaari camp yi jàkkaarloo ñu ne Moussa sànni li nga indi Moussa ne leen yéen yéenay sànni yàlla mu ne wa alqu hibaalahum ñu sànni seeni buum buum yi commencé soppeeku nekk ay jaan di tëb di dal yàlla mu ne wa saxaaru a ayuna naas bëtu nit ñi lañ njabar waaye ay buum la ba tey du ay jaan mais njabarkat sa xel lay njabar bët yi lañ njabar bëtu nit ñi Moussa tiit bu mu gisee affaire bi mu tiit yàlla mu ne ko bu ragal yaa ngi ànd ak yàlla sànni li nga yor sa main droite dana lekk ñoom li ñu indi lépp Moussa daal di sànni yatam bi yow Moussa bi yatu Moussa bi daal di wan li gaa yi indi woon yëpp songu tribune bi gaa yi daw tribune bi mu songu ñu daw ñu fi jaxasoo Moussa daal di téye yat bi samp ko mu taxaw mu téye ko rek njabarkat yi daal di sujjóot daan ne amanna bi rabbi Moussa wa Haroun ñun de gëm nañu yàllaay Moussa mi ak Haroun rek Firaaw ne leen da ngeen koy gëm te joxuma leen ndigal dama daan ngëm yàlla kenn du ci xaar ndigal ngëm non yenn saa nga di xale bu jigéen bu ne non man bala may muuru damay tàggu sama pap ngëm gi ñoragut wala non bala may xabdu mooy julli teg sa loxo sa mooy foo ma dem laaj sama papa ba pare affaire bi ñoragul wala may dem jàkk damay tàggoo ci wala may wor damay tàggoo wala may julli damay tàggoo wala may damay tàggoo ñoragul duggagul ngëm yàlla amul tàggoo Firawna ne leen da ngeen di gëm te joxuma leen ndigal gaa yi ne ko ngëm amul ndigal ñun dëgg la ñu gis mu naat yéen sax xam naa ne kii mooy seen kilifa dafa am lu mu leen jàngal nëbb leen lenn li moo tax ëpp leen pouvoir mais tey et puis lii sax da ngeen a complot da ngeen a dem ci biir dëkk bi complot ba pare ñëw fii tey bëgg maa daaneel mais di ngeen ma xam danaa leen yeew ba dugal leen ci garabu tàndarma yi wala usallibannakum fii la utiliser borom xam-xam yi nee nañ fii mooy ci biir danaa dagg seen meeg droite ak seen tànk gauche danaa leen daaj ci gaw garabu tàndarma yi ma daaj leen ba ngeen dee yaay ne ko noppalul defal lépp mun na def faq di ma anta qaad defal lu la neex adduna bi rek nga mën alaxira ñoo yow ñoo fa yem mënoo fa tus te xam nga lan la sunu yaram yi nga mën a lor waaye sunu iman mënoo faa yegg waaw ndeysaan sunu yaram nga mën a laal mais iman bi tus nga ci mënul gëm nañ yàlla ba pare wala ñooñu buñ la laajee nit ñoo xam dañoo dugg àjjana julliwuñu wooruñu saraxewuñu ajuñu màkk defuñu dara dara lañ deful ci lu baax ay njabarkat lañ ci suba ngoon ñu fanaani aljanna dañoo tuub tuub gu dëggu nag léegi firawna rey leen ñu tàbbi aljanna ñoom defuñ dara defuñu benn effort ci diine waaw ñoom mooy ñooñu bu la laajee rek waxal ñooñu la saxaratu firawna kon loolu tax borom xam-xam yi kon bu ñu tuubee danañ leen baal ndax comme ñee tuuboon nañ leen yàlla baal leen kon jabarkat mën naa tuub sunu borom subhanahu wa taala baal ko mu ne ñëw na encore ci hadisu Hafsa annaha umirat bi qatli jariya laha saharatha fa qutilat mana sànq ki ñu wax moo joxe ndigal nañu rey njabarkat yi kan la ci hadis bi ma doon damale woon Omar ñaar ñëw na ci hadisu Hafsa hadis Hafsa nee na jox nañ ma ndigal ma rey benn jabarkat bu jigéen bu ma jabaroon ñu rey ko kan mooy Hafsa hiya ummul muminin soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa yoo déggee ñu wax benn jigéen ne ummul muminin rek soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam la Hafsa moomu kan mooy papaam Omar ibn al-Khattab yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko dencoon mu ne jox nañ ma ndigal njabarkat bu jigéen bu ma njabaroon ñu jox ma ndigal naa ko rey ma rey ko loolu la wax annaha umirat beneen bi maanaam boobu ñaareel mooy ñaareelu àtte buy war na jabarkat dañ ko war rey ñetteelu àtte baa ngi nii mu ne ko wa kazalika saha an jundab asara al musannif bi hada ila qatli sahir kama rawahu al bukhari hadis bi mu ngi ci bukhari في تاريخه أن أبي عثمان الهندي قال كان عبد الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فعدآه رأسه فجاءه جندب الأزدي فقتله جندب نينا دفعن بين وايبتو دون عثمان الهندي jabarkat la woon dafa ñëw ci bépp ci wetu benn buur bu tudd alwalid mu ne ko kii mun naa koo rey dundalaat ko mu ne ko bismillah jabarkat bi jël jaasi dagg boofu waa ji jëlaat ko kole ko ci yëkkati ko mu jóg taxaw ñëpp tiit walid ne rey leen kii njabarkat la ñu rey ko kon ñetti attengoog yooyu wane ne njabarkat dañ koo war a rey mu ne ba tey ñëwaat na ci beneen dalil boo xam ne mu ngi ci imam ahmad mu ne di nga jël ñetti atte ci dars bi nga jël tey nga dégg ci ñetti tomb yu lay wan ne njabarkat dañ koo war a rey bu njëkk bi mooy bu omar bu Hafsa ak bu jundab ñetti yépp daf laa won ne njabarkat dan ko war a rey mu ne ay saxa qatlu sahir ala salasati awja ñëw na lu lay won ne njabarkat dan ko war a way ci ñetti côté ndax ñetti sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam atte nañ ne dañoo war a rey njabarkat omar hafsa ak jundab mbokk yi lu ñuy jeexale tomb tey bi ci mooy tomb njabar ñu koy jeexale di ko jëlee ci dars bi mooy firil na la aaya baqara aaya bi araamal njabar nekk ci baqara firil nañ la ko ci tàmbali ba ak aaya bi nekk ci suratu nisa firil nañ la lan mooy jibt ak taaxuut ak ñoom ñaar seen différence loolu mu ngi ci dars passé ñeenteel bi mooy anna taaxuut qad yakunu min al jinni wa qad yakunu min al ins loolu ñu ne la jib taaxuut yenn saa yi mën na nekk jinne yenn saa yi mën na nekk nit nit dina dem ba nekk taaxuut xërëm gu ñuy jaamu jinne day dem ba nekk xërëm gu ñuy jaamu juróomeel asab mubiqaat al xusuusaat bin nahi juróom ñaar yi alagaate yoo xam ne yii juróom ñaar yi ñoo gën a dangereux ci bakkaar yi alagaate yooyu jàng nañ ko ci leçon bi la passé juróom benneel mooy anna saahir yukfar njabarkat yéeféer la njabarkat yéeféer la juróom ñett wala juróom ñaareel juróom benneel mooy njabarkat yéeféer la juróom ñaareel mooy annahu yuqtal wala yustataabu dañ koy rey kenn du ko tuubloo ndax lim boole moo garaaw ah waaw dañ koy rey kenn du ko tuubal mu ne juróom-ñetteel mooy wujudu haada fi lmuslimina ala ahdi omar fa kayfa baadahu lii ñu lay wax ci jamono omar la woon omar moo rey lu ñetti njabarkat ca jamono omar la woon kon mu ne sunu jamono nag ndax sunu jamono moo gën jamono omar bu fekkee jamono omar la ñu rey ñetti njabarkat haza fi zamani yi mu ne nekkoon léegi sunu jamono bi ñun lu ñu war def moo tax bu ñu fi jàppoon benn njabarkat rey ko mun nga gis ñëpp tuub mais comme dañ ko encouragé ubbil leen ay rajo di leen utal ay promotion ah di leen woo di leen laaj di leen semaine bi passé dama déglu ku jigéen kooku di wax ci làmb yi mu ne dañ koo bëggoon a rey kan ma ko déglu ci benn rajo mu ne dañ koo bëggoon a rey dañ koo bëggoon posone waaye man waxtaan boobu wax jooju bëggoon naa mu continuer ndax kon su fekkoon ne nit ñi continuer nañ ko dinañ xam ne kii xamul dara dañ koo bëggoon a rey invité ko ci benn kër jox ko ndox mu am poson mu naan ci biiram métti yéen lan ngeen jàng ci loolu ah ah nee na da cee guux continuer wu ko mu arrêté parce que da ko guux rek biiram métti lan ngeen jàng ci loolu yéen man de am na lu ma ci jàng yéen la ngeen jàng ci loolu ak kii nga xamul dara kii nga xamul dara dafa am benn jabarkat bu ngànd bu benn waaye ne leen kii xamul dara ñu ne ko yii kii ba mu ne baax na kaa leen ma dem seeti ko ñu ànd toog waa ji ne lu lu la fi indi mu ne gis nga man naa la xamul fi dara xamul dara waroon na xam li ma fi indi waxoon naa leen ko xamul dara kaa leen dem xamuñu dara moom bu fekkoon ne am na xam-xam danañ ko posone def ko ci ndox ba mu guux ci ba mu yëg biiram métti mu doog a arrêté ne lii dafa am poson kii kay kon balaa mu doon dem lañ ko ne dañ laa xamuñu dara seytaane leen di informé te lu ñu fekke xam ko la leen mën a informé lu ñu xamul mënuñu la kaa wax yàlla na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko kon lii mooy sunu darsa tey incha allah bu subaa ak jàmm ñu jël bulughul maram incha allah bismillah cheikh